bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di ziar ngeen ànd seen mbokk Mokhtar Dioum di taalibe Serigne Ndiaga Sylla imam ñu gën maa xamee ci njaga jum maa ngi leen di baalu àq di leen baal di ñëw ak tey yéen ci ñaareelu jataay ci téere bii di wa kaana xaqan alayna nasrul muminin korong nag firi woon ba yem ci kaana yam ci nag yi nag yi wa kaana te ñu war a jël xaqan xaqan nag mi ngi tàmbalee ci xafistana bihi wa bil islaami fal taxfadil kulla anil malaami sëriñ bi ci xaagi daf na xafistana yàlla nga ñu aar wala boog aar nga ñu xafistana aar nga ñu def la ba noppi xafistana aar nga ñu bihi ci darajey gëm googu gëm googu ñu gëm ci ñu aaree wabil islaami ak ci darajey lislaam kon boog sunu borom fa taxfas yàlla nga aar alkulla ñëpp jullit yëpp yàlla nga leen aar anil malaam ci walis yeddeel ci walis ñu def loo xam ne dañ leen ci yedd kon dégg nga bayit boobu di xaagi ci wakaana xaqan xaagi sunu borom ne wala boog sëriñ bi ne sunu boroom aar nga ñu wattu nga ñu ci barkem ngëm ci darajey ngëm ak ci darajey lislaam gi nu amee aare nga ñu ci kon boog yàlla nga aar mboolem jullit yi ci ñu jëf loo xam ne leen ci yeddee wala ci ñu leen di yedd loolu mooy bayit bu njëkk ci page 4 bii ñu nekk ñaareel bayit bi mu ne qaddamta sayyidal baraya ahmada wal anbiya wa rusula ya man xumida mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo wax na ci alquran ne wala yajala allahu lil kafirina ala al yàlla du mas a def yéefar yi mu nekk ci kaw yu way gëm ñi faaw sunu borom tabaraka wa taala moo garanti ne dinay xettali way gëm ñi ci yéefar yi sëriñ bi nag mu sukkandiku ci yooyu ci aaya yooyu dagaan boroomam te moom du jomm na di ñaan loo xam ne yàlla du ko def ndax yàlla jagleel na ko moom lu mu bëgg rek nee na bi mu ko bëggee rek la ko boroomam defal bu ko defalee ba noppi nag ne ko ñaan ñaanal ma may la ñaanal ñaan ko nag léegi kon bu waxee ne yàlla sàmmal ma mboolem jullit yi ci walis ñu leen di yedd kon waras naa góor góorlu kenn ku dégg loolu ku nekk ci def loo xam ne danañ lay yedd wala dañ ci jële yedd ndax xasida gi mi ngi lay aar ci kaaraange gu rëy goo xam ne ci bayit boobu noonu jéggi na dayoo waaye yàlla nañu yàlla boole rek dëgg-dëgg taalibi sëriñ bi kon bu ne xaddamta sayid al bara ya ahmada wal ambiya wa rusula ya man xumida mu ne xaddamta jiital nga sayid al bara ya sangum mbindeef yi jiital nga ko ahmada ah, turam di ahmad walam biya ak ci biir yonant yi jiital nga ko mu nekk sang mbindeef yi te turam di ahmad jiital nga ko tamit ci yonant yi ci anbiya yi wa rusula ak ñi nu yónni yaa man yow mi nga xam ne santees na la waxoon naa leen sànq ne leen alhamdu yàgg nañ koo firee ne mbooleem cant yi ñeel na yàlla mun nuñ koy baaxoo di ko waxee rek kon cantu làmmañ gi jiitu ci nit ki lu mu war a njëkk defal boromam yëg ko yëg ne yàlla def na la ngay nit def la nga doon doomu aadama ginnaaw mu def la nga doon jullit loolu lépp mu doon ay xéewal ginnaaw bi mu def la nga nekk taalibe Serigne Touba loolu lépp nga sant ko ci sa làmmañ da ngaa war a jéggi foofu nag dem ci asukuru muy sant nag ci say cër jéem koo wommat jëmale ko ci lu neex yàlla sunu borom. yonent bi nag sunu borom da koo jiital ci mu nekk sangu mbindeef yépp nag. te turam mooy Ahmad waaye jiital na ko tamit ci yonent yi anbiya nabi moom mooy singulier wu anbiya rus rasulun mooy singulier rusul ñoon seen différence mooy lan mi ngi mel ni nga woowoon ñaari nit jox leen information jox leen secret daane kenn ki nag demal nga waxal ma ñee loola li ma la wax demal nga waxal ma ko ñee su boobaa kii fekke na fi ma ko waxee wala dégg na fi ma ko waxee wala jottali naa ko information bi waaye amul ndigal dem jottali ko loolu mooy nabi yi rasul nag mooy ka ñu yónni loolu mooy misaal bi gën a gàtt pour ñu xam ne loolu mooy anbiya mooy kon ñu ñu soloo rasul mooy ñu ñu yónni ñoo ñëpp nag ki ñu jiital seen kanam moom mooy ahmad mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam jiitu na nekk sangu mbindeef yi nekk sangu yonant yi nekk sangu ñu ñu yónni yow sunu borom mi nga xam ne yaay santaakoon bi yaa man yow mi nga xam ne xobi daa santes na la kon xaaq gi xaqan xaaf gu njëkk gi kom xaqan dañ koo def shadda shidda ci kaw xaqan gi xaaf gu njëkk gi mooy qaddamta geneen xaaf gi di xudis salaata wassalaama abada lahum kama axzayta man lam yaabuda sëriñ bi ne xut yàlla nga salaata assalaata wa salaata wala assalaata dollee wóolu salaama ak dollee teral abada ba faw lëgum ñeel leen ñoom yonent yooyu ma tudd yàlla nga leen ñoddil dollee wóolu ak doole teral ba faw nag nga defal ko yonent yooyu ak ñooñu nga yónni kama axzayta comme ni nga xamante ne gàccaal nga man lam yaabuda képp koo xam ne jaamuwu la kon képp koy jaamul yàlla rek xis yun moom ngay dajeel mooy gàcc ëllëg yoomal xiyaam ñu tànn nit ci mbooloo jëme ko sawara loolu gàcce mënu ko weesu te loolu ku jaamul yàlla rek sëriñ bi nee na sunu boroom dina la gàccaan kon xaafu ñaareel bi ci xaqan ndax sidd dafa am ci xaq gi moo nekk noonu di xudis salaatu wassalaam abada lahum kama axzayta man lam yaabuda bu noppee ci xaqan dafa am xaqan dafa am alif xaqan alif da cee am alif googu nag la ne ila nabi qudis salaatu wassalaam wal anbiya wa rusuli munzil al kalaam da ngay tëb kalima ila nabi ñëw ci ñaareelu kalima bi muy xut nga ne xut yàlla nga ñoddi assalaata doollee wóolu wasalaama ak doollee teral ila nabi jëme ko ci sunu yonantu mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam wal anbiya ak mboolem yonantu yi mboolem ñu ñu solo wa ak ñi ñu munzil al kalaam yow mi nga xam ne yaa wàcce wax jii di alquran yow sunu borom yàlla nga def loolu yàlla nga ñoddi xéewal ak teraanga ci yonantu bi solo alayhi wa ak mboolem ñi ñu solo ak yonantu yi ñi ñu yónni yow mi sunu borom mi nga xam ne yaa wàcce alquran loolu foofu boo seetloo anbiya bi ma la wax ak rusul ku nekk rusul rek nekk nga anbiya képp ku nu yónni rek sol nañ la waaye mën nañ laa sol te yónniwuñu la comme misaal bi ma la joxoon sànq kon ki nu sol xamal nañ ko xew-xew bi waaye amul ndigal ci jottali ko waaye ki koy jottali nag moom mooy rasul léegi alayna ayin gi mooy bayit bi ma war a jël mi ala nabi muhammadin wal ali salli wa sallim wastajib suali kon boobu da ngay ci ñaareelu xàbb bi salli yàlla nga doolee wóolu wa sallim te yàlla nga doolee teral ala nabi ci yonant bi muhammad te turam di muhammad wal aali ak waa këram wastajib te yàlla nga nangu su aali sama ñaan gi may sàkkul ñii bëgg ak xettaliku ako kaaraange ako wattu ako sàmm sunu borom yàlla nga nangu sama ñaan gi loolu mooy li ma la waxoon sànq ci taarixu xasiida gi nga xam ne ñooñu daa am luñ bëggoon te luñ bëggoon am nan ko te ku sàkkooti leneen lu melati noonu ci xasida gi faaw da ko am ndax xasida la goo xam ne njariñam foo ko takk rek weesu na ko ndax ay kusufaat ak ay anwaar ak ay lasraar la dajale